Modou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf aw lay jeex na njëgul yaas beeg wàññi gi ñu ci wax Macky moo yore léegi cëgal guyam bu doon kuy wër ko mu la l'observateur nee nañu jot na caution ubbil yéenekaay bi conseil constitutionnel gi premier ministre Cissé ngir mu may Macky sañ-sañu defeb décret buy tëral anam yi wàññi luyaas bi yéenekaay bi nee nañu juróom-ñaari sage ci conseil constitutionnel nee nañu ko mën naa nekk ñaar ñi nekk ci moo ko jëli woon ci aéroport ay tànkam ci Sénégal mooy teewe ndaje mi ñu war a tàmbali tey jii ca jam ñaaju jëm ci wutal Afrique ay koppar yu mu mën a financer ay infrastructure am yéenekaay bi bind ci xëtamu njëkk ne Afrique mi ngi seet aw yoon wu mën a jaar ba suqaliku la Sénégal nañu fii ci Ndakaaru fii la ñuy daje ngir nase fi ay pexe yu ñu mën a ootale privé bi ba ñu jàpp ci financement infrastructure bu continent bi fexe ba génne ci ak lëndëm lu toll ci fanweeri junni ménage ak juróom-ñett yu juróom-ñetti téeméer 38 900 ménages yu nekk ci réew mi ñu fexe ba ñu am courant le mandat nee nañu mooy njariñol programme bi ASER Andi njiital agence sénégalaise électrification rurale di Baba Diallo mi ngi leeral ci journal bi li tax a jóg boobile programme ak fañ ko fas yéene ngir mu mën sotti la tribune nañu démb la woon ba ñuy daloo station bu tolekee ga ci Goudiri fa xam leen yii ay projet la yuy dëppoo bu baax a baax ak bëgg-bëggu président Macky bi jëm ci fexe ba fii ak courant bi daj ci Sénégal fépp leer yoon di justice war leeral tey ji yaa ma nekk maane gi dox au risque mu di Ablaye Bob lu nekk mën na xew li xew ci seen diggante ñoom ñaar source mi ngi ñu koy fàttali nee nañu Mame Mbaye Niang mu yóbbu Ousmane Sonko ca yoon ngir tiiñal ko ci lu mu ko waxaloon Ousmane Sonko dane woon dafa am ab rapport boo xam ne waa inspection générale d'État ñoo ko def rapport ba dafa tuumal Mame Mbaye ak jalgati ca Prodac loolee nag la Mame Mbaye ni du dëgg te il faut dañuy dem ca yoon ngir Ousmane Sonko wax ana li mu ko mesure publique ak faux et usage de faux libération di ko dëggal ci xëtamu njëkk mi ngi ñuy wax la nekk ci citation bu parquet bi xamal nañu it ne moom Ousmane Sonko ñi mu bokkal langue politique di waaye yeewi askan wi tàkk nañu ba dëgër def fee non say fas yéene taxaw ci ginnaaw Ousmane Sonko ngir jàppale ko layoog Ousmane Sonko ak ministre Mame Mbaye l'observateur gis na ne am na nu muy demee mooy doon ndoxteel jafe-jafe yi ci Ousmane Sonko moom Sonko la ko kon xew ne muy Ousmane Sonko di waay yeewi askan wi tey jii ci lañ gën a radical Sonko mi ngi wéy di xambaka xiirtal ak xabtal jeunes réew mi ci ak résistance nee na leen démb képp ko taxaw naan leen bu leen xeex toog leen di seetaan ñu leen di faat ak a tëj kookee bëggul réew mi réew mi quotidien mi ngi xëy di ñu xibaar ne am na ñaar fukki député ak juróom-benn yu nekk ci assemblée nationale bokk ci yeewi askan wi ñoom député yooyee li ñu bëgg moo di fukki yi nga xam ne tudd nañu leen ci ak jalgati ci bu fond force covid 19 bi yooyu le ministre ñu gàddu leen yóbbu leen ca kanam haute cour de justice àtte leen l'info nañu ministre yooyee député yeewi yi bëgg yóbbu leen ca kanam haute cour de justice ngir àtte leen toll nañu ci fukki ministre Mansour Faye la Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo Moustapha Diop Abdoulaye Diop Aïssatou Sophie Gladima Zahra Iyane Thiam Ndeye Saly Diop Dieng Aminata Assome Diatta ak Néné Fatoumata Tall li leen rapportu cour des comptes bi waxal ci xaalis bu fond force covid bi la ñu ñu dem lijjanti ji ca kanamu yoon yoon mi ngi doon àtte démb mbirum Ngóone Wàdd Ngóone Wàdd sursoi benn femme la bu am fanweeri at ak benn ko ëmbal bañ ëmb bi moom Ngóone Wàdd mu wësin ray xale ba da bi sedd ci dem ca mairi bu Kër Massar ci état civil di fa wuti certificat d'inhumation. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Ecobank Malaysia UMO Soumari.com